kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey ay fukk ak ñaar ci suuratul mujaadila fi suñu borom di waxee ni yaa ayuha allazina amanu ida naajaytumu rasul إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñu ngi yeesal sant suñu boroom mi ñu dajalewaat ci néegam bi ci àllarba ji nga xam ni mooy bis bu jëkk ci weeru rajab ci 1443 rajab sunu maam yi ñoo ko doon tuddee ndeyu koor doonte ne diggante ma koor am na weer wu fa dox ñu tudde ko Shaaban ca moom la ñu daan tuddee baraxlu ala kulli xaal ñu ngi ñaan yal na yàlla teral ko ci ñun ci jàmm ak lislaam ak yiw bu dëppoo ngëm-ngëm at sëkk di ca fàttali rek ne nag booy déggu rajo yi télévision yi weeru rajab jaamu yàlla gu ne dañ ko ci digle waaye lu ca wér jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne lu ñuy jaglal rajab la mbokk loolee amut lañ ca wax nag bari na waaye la ca wér moom loolee amul mbokk julit ñu bàyyi xel daal bokk na ci ñeenti weer yi yàlla wormaal màggal ko jox ko cir moytu ci bàkkaar góorgóorlu ci jaamu yàlla de manière générale loole lu ñu sopp la bal lu war la borom bi nee na wa man yuazzim sha'aira allahi fa innaha min taqwa alqulub ku màggal mandarga yàlla ya day waññe na ragal yàlla mi ngi ci yow fa lillahi alhamdu ñu ngi ñuy wërsëgal bis ba ca jëkk ñu daje fii di fas yéene jàng téere borom bi loole mbokk ci ngëneel yi gën a màgg la bokk ya ngeen ci yàgg dégg bokk na ca tey lu bari ci nit ñi ña nga riir jëm ca écran télévision ya ngir seetaan la fay xew ci football suñu borom suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla am na ay malaaka yoo xam ne sayaaxiin dañuy nekk di wër kaw suuf yaltamisuuna xilaqa zikr lu ñuy xool ñan ñoo daje di tudd seen boroom suñ ko gisee wootente ñëw wër leen borom bi subhanahu wa taala laaj leen te moo leen gën a xam sama jaam yooyu lu leen tax a daje naa ñii de dañ fee daje yàlla di tudd saw tur di la fàttaliku di la ñaan suñu borom mu ne waaw ndax man dañ maa mës a gis ñu naa yàlla de ñoom mësuñu laa gis mu ne waaw buñ ma gisoon nag mu naa ñii day buñ la gisoon xam naa ne daañ gën a yokk la nga xam ne mooy seen farlu seen jaamu yàlla te it yow julit doo gis mukk sa borom lu dul ne da ngaa dugg aljanna yal na yàlla dugal ñë fa borom bi laaj leen ne leen waaw ñoom ana lu ñuy sàkku ñu naa ñii de lee gën a rëy la ñuy sàkku yàlla muy dugg aljanna te nga la waay julit xamal loolu su dund gi fi mu commencé ba fi muy jeexee la gën a rëy la nga ci sàkku muy tabbi aljanna ndax ñoom dañoo gis aljanna déedéet waaw buñ ko gisoon nag ñu naa ñii de buñ gisoon aljanna kon daañ gën a farag daañ gën a fagaru gën a góorgóorlu te wallahi mbokk ku dee rëcc ku dugg àjjana rëcc ku dugg sawara waxi noppi képp ku dugg àjjana da nga rëccu càggante ya nga sàggane woon ci jagle loo ko jàmmug yàlla ah luñ gën a ragal mooy sawara ndax dañoo gis sawara déedéet waaw buñ ko gisoon nag ah yàlla ñii de buñ gisoon sawara tey daañ gën a fuglu daañ gën a moytu te loolu mbokk mi ngi noonu suñ borom ngi yàlla mu ne maa ngi leen di seedaloo ne man mi tax ñu daje maa ngi leen di seedaloo ne bëgg naa leen yàlla nañu yàlla bëgg àjjana ji ñuy yaakaar danaa leen ci dugal te danaa leen musal ci sawara malaaka yi ne ko ah borom bi suñ càmm mii de moom daje bi indiwu ko woon waaye daa ñëw fekk gaa yi toog mu toog ak ñoom ci daje bi suñ borom ne boole leen ko ci ñooñee kuy nangu ñëw di toog ak ñoom du texee di ñooñee kuy nangoo ñëw di toog ak ñoom di texee di ngallaawaay mbokk boo bëggee texe àdduna ak àllaaxira del boo del toog ak ñu am tawxiid wéetal seen boroom duñ ko bokkaale dara yaakaaruñu ko dul moom duñu sukkandiku ci ko dul moom ànd ak ñooñu day day tax nga texe yal na yàlla ma ñu texe àdduna ma ñu texe àllaaxira kon incha allah ñu ngi bàyyi Cheikh Ousmane mu jëlal ñu bind bu njëkk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني برومني يا أيها الذين آمنوا أي نيغا خامن داغي نغم إذا ناجيتم رسول سنن دمي با بeuga ديوك يوننتي بي فقدموا بين يدي نجواكم صدقه جيتال لين ci kanamu seen deeyo bobe sarax bu ngeen di genné zalika xayrun lakum wa athar loolu moo gën ñeel leen te moo gën a laab fa in lam tajidu fa inna allaha ghafurur rahim su ngeen amul li ngeen sarxe yàlla moom mooy jéggale di yërëmaate a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat amu ndax di ngeen di ragal ci di génne ca seen kanamu déeyoo ba lii di ay sarax fa is lam tafalu wa taaba allahu alaykum su dee def leen ko ca yàlla jéggal na leen fa aqimu salaata wa aatu zaka taxawal leen julli ca joxe azaka wa atiu allaha wa rasula te ngeen topp yàlla ak yonentam wallahu xabirum bima taamaluun yàlla moo ñàkk kumpa ci li ngeen di jëf alam tara ila allazina tawallaw qawman gadiba allahu alayhim ama ndax gisoo ñi nga xam ne dañuy dem di féetewoo xeet boo xam ne yàlla dafa mere ca ñoom ma hum minkum wala minhum bokkuñu ci yéen julit ñi bokkuñu ca ñoom yéefér ya wa yaxlifuuna ala alkazibi wa hum yaalamuun ña nga ah noom wa yaxlifuuna ala allahi alkaziba wa hum yaalamuun ñoom day ña ngay waat ci yàlla mi ngi noonu wa yaxlifuuna alal kazibi wa hum yaalamuun noonu la day naam wa yaxlifuuna alal kazibi wa hum yaalamuun ña ngay waat ci fen te fekk xam nañu aada allahu lahum azaban shadida yàlla day ma nga leen di waajal mbugal mu tar innahum saa ma kaanu yaamaluun e waaye ñoom day ak a ñaaw la ñu nekkoon di ko jëfee mi ngi noonu mbokk julit saar wi ñu nekk la nga xam ne mooy jubluwaay ba ca gën a màgg bokk na ca importance su déeyoo ca bari na jeunesse su tey li tax seeni erreur di multiplier wu seen xel la ñuy demee rek wax li ñuy wax def li ñuy def waaye ngalawaay jullit tàmmal lépp loo xamee ni nii lu am importance la nga am koo ci diisool am koo ci déeyool loole dañ naan kenn du déeyoo di diisoo ba pare di rëccu fokk yàlla barkeel loolu rawatina ci wàllu ay stress wàllu fitna mooy nga am problème ba pare denc ko amoo kenn koo ca waxal mbokk loolu baaxut tubaab yi nga xam ne c'est des foules solitaires mooy kenn toppatawul kenn kenn lijjantul mbiru kenn la ñuy dimini ko mooy dorog xaru dof jeex na lu tax parce que problème boo am amoo koo ko waxal loole ñu bàyyi ci xel bu baax sun maam yi daan jàngale nee nañu soxna caam benn xale bu jigéen daa ñëw di ko tàggu ne ko ah maam diw man damay sëy dëkk sàngam ca man xawma fa kenn mu ne ko ha mu ne waaw mu ne ko noo garaawul léegi génne benn xeer na ko yóbbaaleel xeer bi problème boo am demal suul ko fa ngay sangoo xam nga bu dee àll bee ba tey ay saggat rek la ñuy def nii foofu la ñuy sangoo ci biir suulal xeer bi foofu léegi problème boo am ak koo ko mën a amal ñëwal ci xeer bi rek nga wax ko soo ko waxee rek danaa ko dégg waaye ak li waxoon portable xew tey soo ko waxee rek danaa ko dégg mi ngi noonu danaa la ñaanal ci danaa la nangam soxna si yóbbaale xeer bi problème bu mu am ak jëkkër ji bu duggee ci wanag wi ah maam Thiam sama jëkkër da tey nangam nangam nangam sama wujj da tey nangam nangam nangam wax wax ba xol bi féex ñu bis mu ñëw di sangu rek xeer bi daal di toj mu ne jëkkër ji na ko may ndigal mu delluwaat seen dëkk bi mu ñëwee mu indaale xeer bi dem ci maam Thiam na ko ah maam day li ma gën a indi mooy xeer bi ma joxoon daa toj. mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko waaw mais dëkk ba léegi ndax amoo fa kenn koo xam ne mën ngaa dem di waxtaan ak moom mu ne ko ah kay sama dëkkandoo Fat Sarr di ko baax la dañ laa dem di waxtaan ak moom. mu ne ko nag gis nga li ma lay wax li nga doon wax lépp dégguma ci dara mais li nga doon wax boo ko génnewul woon gis nga ni xeer bi tojee soxal bi mooy toj gis ngeen. loolee mbokk benn jàngale bu suñu maam doon jàngale loolu tax ngallaawaay yéen ndaw ñi bàyyi leen xel loolu. problème yi ngeen di am yëpp service ba seen diggante ak seeni soxna seen diggante ak seeni parents bul jël sa décision rek guddee dem sa yoon xoolal koo am yaakaar nga dem déeyoo ceeg moom waxtaan ceeg moom incha allah doo ko rëccu loolu moo tax yàlla indi lu ñu déeyoo ki nga xam ne mooy xawla mi ngi noonu suñu borom mu ne xawla mooy kaddu am nañu sax ñu ne xawla nu tudd ndaw sa xawla bintu saala ba naam indil ñu déeyoo ne yéen ñuy déeyoo fi ngeen mën a nekk ñaar ngeen maa leen ñetteel indil ñu déeyoo ne yéen jullit ñi bu leen mel ne yahud yi déeyoo ci lu bon bu ngeen di déeyoo déeyoo leen ci njekk tey nag mu indi déeyoo bi gën a kawe ci kaw suuf ca mooy jullit ñi nga xam ne dañuy am soxla ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw bëgg ay conseil am te loolu it yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu leen ko waxan ci dars yi passé kenn daw ko rang sallallahu alayhi wasallam cinq fois par jour ma nga ca jàkka ja lu xew Madina ma nga dem gaa yi nag dañ daan ñëw mujj nag gaa yi xaabaabal ci ku jóg sa morom toog ku jóg sa morom toog suñ borom yàlla ne hey bis nekki tey heure bu ngeen demee bay déeyoo ak yonent bi na ngeen génne ab sarax jiitu ngeen di ñëw gis ngeen na ngeen génne ab sarax jiitu ngeen ñëw sarax ak lu mu mën a doon ki amul moom jéggal naa ko waaye ki am moom balaa ñëw na génne ab sarax loolee mbokk découragé na caamin yu bari gis ngeen ndax la nga xam ne mooy sarax ba ñuy génne ca doomu aadama suñu borom mu ne wa innahu li hubbil xayri la shadid doomu aadama dafa tar ci bëgg alal am na benn borom xam-xam caamil bu ma mës a liir fàtte naa nag tur bi waaye daal nee na man damay xeex ak sama bakkan ci bàyyi jëw mënuma fexe ba jëw daal mënuma koo bàyyi nee na ma def su ma jëwatee nit rek bu ma xëyee damay woor waaye nee na teewul maa ngi jëw mën a xaaral ku ma jëwatee rek bu ma xëyee dinaa sarxe cinq mille waaye nee na ba ma jëwee kenn xëy su ma sarxe cinq mille boobu léegi jëwatu ba kenn ndax dama dafa ni mu bëggee ni mu bëggee alal ala moo tax suñu borom bi ne léegi balaa kenn déyeetoog yonent bi na joxe dara gis ngeen gaa yu bari ñoom daal di wàññi déyoo ba waaye bañ demee nag ba gaa yi mujj nag di xaw a am luñ cey wax borom bi na ah da ngeen ragal ngay déyeeg yonent bi di indi dara di indi problème léegi baal naa leen yàlla man suuxal ko ci yërmandeem quand même attiré na attention nit ñi ci importance déyeeg yonent bi waaye mu ne baal naa leen man suuxal naa loolu léegi ku ku indiwul saraxit du tey na ñëw borom bi subhanahu wa taala mu ne looloo gën ñeel leen ca gën a laab borom boobu subhanahu wa taala gis nañu bi mu waxee loolu mu ne ngalawaay taxawal leen julli ca joxe azaka ca topp yàlla topp yonent bi ca xam ne lépp loo xamee ne nii da ngeen koy def yàlla ñàkk na ci kumpa looloo tax mbokk la gën ci lu ñuy deeyoo mooy deeyoo bu jëm ci ñaaxaate ci jaamu yàlla déeyoo buy ñëw ci encouragante ci jaamu yàlla génne ay sarax génne ay ay ay zakat dégg nga borom bi mu ne la xayra fi kasirin min najwaahum lu ëpp ci déeyoo nit ñi amul njëriñ borom boobu nag subhanahu wa taala gannaaw loolu mu ne xoolal nag ñii nga xam ne ñoom ñooy naafiq yi dañoo dem di lënkaloog yahud yi yàlla mere léegi lañ jàng ci timis gayril maghdubi alayhim incha allah dañ ko jàng léegi ci gayril maghdubi alayhim mbokk yahudi yi mooy ñi nga xam ne jàngoon nañ ci seeni téere xam diini lislaam mi ngi ñëw ñu xam yonente bi xam mandargay alquran waaye ba mu ñuy lii di ak noonoo ci rëy ak iñaan dugg leen ñu bañ koo topp yàlla mere leen ci loolu xam dëgg bañ a topp dëgg naafiq yi nag comme yahudi yi ci madina dañoo amoon doole ñoom dañoo soloon mbubbum julit ne ju ne ay julit lañu waaye bu guddee ñu rocceeku dem ci yahud ya ne leen ñoo gi na far borom bi nag ne xoolal ñi nga xam ne ñu ngay farandoog yahud ya bokkuñu ci ñoom yahud yi bokkuñu ci yéen julit ñi ca mbokk loolu mooy naafiq mu zabzabina bayna zalik ba pare encore ñuy waat ne ñoom li ñuy li ñuy def lu jubla ci xam nañ ne dañuy fen te loolu mbokk loolu mooy yeminul xamuus mooy waat ci fen julit doyoon na bàkkaaram rek mu fen fen ci bàkkaar yi gën a garaaw la bokk am maa nag fen ba pare waat ña da ngay fen donte ne ak yomb commerçant téere bi ñaata cinq mille ah trois mille baaxul billaay walaay la ma la ma dikkee peu de trois mille yaa ngi leen ko dégg waay waat ne lii am na te fekk ne da ngay da ngay fen borom boobu subhanahu wa taala ne yàllaa ngi leen di waajal mbugal moo gën a tar ci mbugal yi mi ngi noonu lu tax moom mooy dafa ñaaw la nga xamee noonu ne dañ koy dañ koy nekk di ko jëfee te mooy trahison ba ñu nekk woon yéeféer yi nekk fee nekk yéeféer xam nañ seeni mbir yow nag nga ne jullit nga dugg ci biir jullit ñi xam seeni secret lépp nga jël ko di ko génne borom bi mu ne ak a ñaaw lañ doon jëfee kon mi ngi noonu Cheikh Ousmane
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء كاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز
jaza barakallahu fiikum suñu boroom ma nga ca naafiqiya ittaxasu aymaanahum junna jël nañ giñ yi ñuy giñ di ko waat mu nekk lu leen di protéger mooy ab pakk bu leen di aar fa saddu an sabilillah ñu wër ñu dem di fegaate ci yoonu yàlla fa lahum azabu muhin dana leen ñeel mbugal bu leen di toroxal lan tughniya anhum amwaaluhum wala awlaaduhum min allahi shay'a du leen jëriñ mukk seen alal ya ak seen doom ya ci yàlla ci dara ulaa'ika ashaabu naar ñooñee day ñoom ñooy ñoñi sawara hum fiiha xaaliduun te ñoom day dañu fay béeglu ba faw yawma yab'asuhumu allahu jami'a bis ba leen yàlla di dekkal mboole seen fa yaxlifuuna lahu kama yaxlifuuna lakum daañu nekk di waat ñeel leen comme ni ñuy daañu nekk di waat ñeel yàlla comme ni ñuy waate ñeel leen wa yaxsabuuna annahum ala shay ñu jàpp ne ñoom day ñi ngi ci dara ala innahum humul kaazibun la am kay mooy ñoom ñooy fenkat ya istahwaza alayhim shaytaan shaytaane day mooy ka leen not fa ansaahum zikrallah mu fàtteloo leen lii di fàtte fàttaliku yàlla tudd yàlla ulaika xizbu shaytaan ñooñu ñooy partib shaytaan ala inna xizba shaytaani humul xaasiruun ay waaye partib shaytaan te mooy farandooy shaytaan ñoom de ñooy ña perte inna lazina yuxaadduuna allaha wa rasula ña nga xam ne nag ñooy noonoog yàlla ko yeneen tam ulaika fi lazallin ñoom day daañ bokk ci ña gën a suufi kataba allahu la aglibana la aglibanna ana wa rusuli yàlla day bind na ay farataal na ne ne moom mooy not moom ak yonentam inna allaha qawiyun aziz sa borom yàlla mooy borom kattan gi not lépp lu mën a doon mbokk gis nañu ne naafiq yi ñooy yéeféer yi yées ci yéeféer yi waaye dañ daan ñëw di waat waat yooyee nekk ci ñoom ay bouclier ba kenn du leen laal su ñëwee ci yonente bi alayhi salaam nashhadu innaka la rasulullah ñi ngi seede na yow yonente bi yàlla nga heure bu ñu waxee waxi musiba ñu waat ci yàlla ne ma qaalu déedéet il ila axiri borom bi subhanahu wa taala nag nee na teewul ña nga cay fegaate ci yoonu yàlla te mbokk naafiq lim gën a bañ mooy gis kuy jaamu yàlla looloo tax ba ku nekk ci yéen nay moytu nit ñi mel noonu mooy ñi lay découragé ci jaamu yàlla rawatina suñu doom yi nekk Occident da nga ciy gis ku dem di fonk julleem gars yi naan ko yow da ngay sonn sa bopp waaye diine ji kenn mënu koo dund fii kaza wa kaza loolee mbokk musiba la yaa ngi gis benn waaye ca aljanna ma ngay taxaw di seen kam doon lënkalul ca sawara naan ko tallahi in kitta la turdin yow mii day xaw nga maa doon ku may alak kon ñi ngi fekk nit ñi ci yoonu yàlla doonte ne loolee bokk na lu leen ci yàlla nattoo seen alal jaa ngay yokku seen doom yaa ngay yokku ñu jàpp ne ñoom réussir nañu ca pexe yi ñuy def borom bi mu ne day loolee du leen mën a jëriñ ci yàlla ci dara du leen tee feebar du leen tee dee du leen tee ëllëg ñu tabbi sawara ñooñu sawara lañu te buñ jógee duñ fa génn ba faw borom bi nee na gis nga yéen jullit ñi li leen naafiq yi waatale bu leen yàlla dajalee àllaaxira it lu ñuy wax wallahi rabbina ma kunna mushrikin ay yàlla ñun mosuñoo bokkaale mi ngi noonu borom bi nag ne ñoom day dañuy jàpp ne ñi ngi ci dara waaye borom bi mu ne déedéet ñoom rek ñooy ña nga xam ne ñooy fenkat yi looloo tax ba it mbokk toujours diine del moytu ab waatkat yoo xam ne ñaari baat ñett mu waat loolee la nekk ci dënn ba lay bëgg a masqué waaye jullit moom la muy wax di ko jëf jarul mu nekk di ko waat oo mu ngi noonu borom bi nag nee na naafiq yi seytaane moo leen not fàtteloo leen tudd yàlla mbokk fàtteloo leen tudd yàlla ay maratib la mooy ay degré la am na ñoo xam ne seytaane da leen fàtteloo yàlla complètement te mooy lu bari ci yéefir yi tey rawatina tey boo demee en Occident seeni maam ay chrétien la ñu woon gëmoon nañu yàlla gëmoon nañu àllaaxira waaye seytaane ñëw na indi la nga xam ne moom mooy découverte yi am ci kaw suuf dévier leen ci la ëpp ci ñoom fàtte nañu yàlla complètement toppatoo ñu diine moo am ñoo xam ne seytaane lam leen fàtte la mooy jaamu yàlla yi aka bari ci ay jullit yoo xam ne seytaane fàttaloo na leen julli complètement fàtte na lu julli complètement su ma koy wax sama xel dana dem sama benn doomu ndey El Hadj Fadiour Gueye bi ma leen a jox fii misaal toujours ngir ñu yokk ko ñaan nee na dafa dem France fekk fa ay cousin ku góor ki sénégalais la ku jigéen ki sénégalais la ñu dem am fa njaboot nee na ma ñëw di julli benn doomam boo xam ne am na 14 ans ñëw na ma mais tonton qu'est-ce que tu fais nee na tontu ma ko mais tonton qu'est-ce que tu fais nee na bi ma paree ma ne ko mais li may def mosoo gis ku ko def mu ne non non non mosuma gis lii mu pare rek dem ci cousin yi lu mu leen yàqul lu mu fàtte la xoolal am doom bu am fukki at ak ñeent mosulaa gis nga teg sa jë ci suuf loolu misaal la ci ana tey ñaata ci ay jullit lu seytaane fàttaloo zakat xam nañ ne zakat ci diine la bokk mais mosuñu génne zakat seytaane fàttaloo leen ko ana ñan ci jullit la seytaane fàtteloo ne la nga xam ne nii mooy njaaloo lu xaram la lekk riba lu lu xaram la ñaata la ci seytaane fàtteloo waaye mbokk seytaane nag du xeeb ba fàtteloo la zikrullah mi ngi noonu seytaane dana la fàtteloo julli ci formu nga fàtte ko yonent bi nee na foo ko fàttelu ko rek jógal foo fay waxtu wa nga julli seytaan dana la fàtteloo zikr yi nga war a def masalan tey wóor na ma ne yéen caamin yi am na ci koo xam ne xam ne ne buy dugg jàkka day wax bismillah allahumma iftah li abwaaba rahmatika xam na ko ci waxu ko am déet seytaane moo la ko fàtteloo bi ngay añ sànq mën na am fàtte nga wax bisimilah ba ngay tàmbali am déet moo ne xam nga ko de seytaane moo la ko fàtteloo kon seytaane da lay fàtteloo lu baax la nga war a def looloo tax nga war di góorgóorlu ci sa kemtalaal kattan di xeexal sa bakkan di ñaan mu mu sori la mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag ne fàttaloo na leen zikrullah ñooñee day ñoom ñooy équipe bu seytaan parti seytaan looloo tax mbokk Sénégal je crois am nañ plus de trois cent parti waaye mbokk xam leen ne kaw suuf ñaari parti yi mag ñoo fi nekk benn parti bi mooy xisbullah benn bi mooy xisbu seytaan ñaari parti yi dong am léeg-léeg nag transhumance am naam léegi la ngay gis ku jóge ci parti yàlla dem ci parti seytaane yàlla na yàlla musul ñu ci léegi-léegi nga gis waa parti seytaan koo xam ne balaa dee dem na parti yàlla yàlla na yàlla yombal ko ci ñun yaa ngi dégg waaye ñaati parti yi rek moo xam xizbullah xizbu seytaan borom boobu subhanahu wa taala nag ne ñii de parti seytaane ñoom day ñoo ñe perte ndax ñoo noonoog yàlla ak yeneen ci yàlla te ñooñu ñoo nekk fa gën a suufe ña gën a suufe te mbokk suñu borom nee na yowmal qiyaama biir sawara naafiqi yi nekk fi darkil asfali min annoor ñi yàlla gën a mere ëllëg yowmal qiyaama bu yéefar yi taxaw fee féttarlu ne yàlla amul waaye ñi yàlla gën a mere mooy naafiq yi nga xam ne ñoom dañoo nekk yéefar ba pare ñëw dugg ci biir jullit ñi di yàq la nga xam ne mooy lislaam fil azallin borom bi nag mu ne xam leen ne lu mu yàgg-yàgg maag sama yeneen ci ñooy not te it yàlla mooy borom kattan gi not lépp te it mbokk fi lillahi alhamdu bokk na loo xam ne nii ñaari nit sikki sàkk wuñ ci jullit ak yéeféer jamono ji ñu toll islam rek mooy avance dans le monde islam rek mooy avance dans le monde demal en Europe demal en Asie demal partout lépp lu ñu daan tudde diine ñu ngi dellu gannaaw islam rek mooy avancé waaw mbokk waa ji lu mu la raw raw raw buy dellu gannaaw ngay avancé buy dellu gannaaw di avancé danga ko mus a dab day baromb ko mi ngi noonu looloo tax yonent bi alayhi salaam nee na balaa àdduna tukki islam dana tasaaroo ci kaw suuf dana not lépp dana dugg ci dëkk yëpp ci kër yëpp na doon këri tabax ya këri sàkket la ci teddaange ko yàlla teral ak toroxtaange ko yàlla toroxal yàlla nañu yàlla boo la ñuy sabab lu ngir lislaam jëm kanam
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
jazakumullahu xayra suñu borom jalla waala mu ne laa tajidu qawman yuminuuna billahi wal yawmi al axir doo mën a gis mukk benn xeet boo xam ne dañoo gëm yàlla gëm àllaaxira yuwaadduuna man xaadda allah wa rasula ba pare ñu dem di sopp koo xam ne daa noonoog yàlla ak yonenti yàlla walaw kaanu aabaahum même bu doon te ne ñooñu dañoo nekkoon seeni baay aw abnaahum wala seeni doom aw ixwaanahum wala seeni frère aw ashiratuhum wala ñu bokk benn giir gu ñu bokk ulaika kataba fi qulubihim al iman ñooñee day yàlla bind na ci seen xol yi lii di ngëm wa ayyadahum bi ruuxin min dooleel leen ci ruux goo xam ne day bawoo ca moom ca mooy alquran wa yudxiluhum jannat dana leen tàbbal ci àjjana yoo xam ne tajri min taxtiha al anhaar dana daw ca suufam lii di dex ya xaalidiina fiha ñu sax fe ba faw radiyallahu anhum yàlla dana gërëm ñeel leen waradu anhu ñoom it dañ gërëm ca lay ba woocee seen boroom ulaika xizbullah ñooñee nag ñoom ñooy li di parti bi yàlla ala inna xizballahi humul muflihun la am kay mooy parti bi yàlla day ñoom ñooy aji texe ya mi ngi noonu mbokk gis nañu ne diine lislaam mooy diiney bëgg yàlla bëgg la yàlla bëgg bañ yàlla bañ la yàlla bañ naam subhanallah mooy bëgg yàlla bëgg la yàlla bëgg booleeg bañ lépp lu yàlla bañ lenn ci borom xam-xam yi dañ naan bu doon te ne ponki ngëm yi am na bu leen juróom-ñaareel mi ngi nekk alwala wal bara mooy féetewoo ak deñ loolee mbokk da ngay gis ne bokk na féetewoog ñu baax dalay jural yàlla subhanahu wa taala bëgg la ndax yonent bi alayhi salaam ne du ngeen gëm lu dul da ngeen bëggante du ngeen gëm lu dul da ngeen bëggante xatta taxaabu lu dul da ngeen bëggante waaye du ngeen gëm lu dul da ngeen bañ noonu lislaam yi mi ngi noonu suñu borom yàlla mu ne doo gis nukk nit koo xam ne gëm na yàlla gëm àllaaxira xam ne kii daa noonook yàlla noonook yonent yàlla ba pare mu koy bëgg abadan même bu doon seeni bàyyi ca aaya yi mbokk la taxoon mu wàcc mi ngi wàccoon ci keroog xare badr ñii di waa makka ñëw di dajeeg yonent bi ak i saxaabaam mboolem muhaajiruun yi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam armée màkk bii di ñëw seen i baay ci nekk seen nijaay seen i frère seen i ilaaxir yi ñoom ñëpp màkk lañ juddoo seen i mbokk lañu waaye maadaama kàddug yàlla taxaw na ñoom ñëpp ñu takku taxaw nar a reyante ñoom ca diine tax loolee bi ñu amee mu am ca jàmbaar ju màgg ju ñu wax abu obayda amir ibnul jarra moom lañ tuddee jàkka jee suñu mbokk ba xafizahullah imam ousmane gallaajo di jiite gallawaay yéen ndaw ñi xam leen ni jàkka yi bu ñu leen di utal ay tur daañ ko ut pour mu nekk mandarga tey jii doomu aadama dañu am tur pour ñu xàmmee leen buñ ñëwoon rek jëlal yi doxal ma ko kay nekk ca jàkka ja loo koy wax kan laay wax cheikh ousmane nga wax wala kan muhammad wala kan nga wax jàkk yit buñ ñee jàkk nangam fokk ñu xara xàmmee ko looloo tax ñu wutalee ay tur profitoo ci fàttaliku ci jàmbar yu mag yooyee abu obayda amir ibnu jarra mooy bokk te fukk ñu yonent bi alayhi salaam waxoon ne àjjana lañ jëm naam kii di amar ibnul xataab keroog bañ ko jamee mu ne cey bu abu obayda doon dund day moom laay def mu def xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma demee ci yàlla mu ne ma lu tax lu tax nga def abu obayda mu jiite xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ne ko damaa dégg yonent bi nee na xeet bu nekk am nañ ko wóor ñu nekki wóor ci ñun ma abu obayda amir ibnul jarrah mi ngi noonu ci loolu ci histoire bu gudd al muhim yéefér yaa ngi leen attaqué abu obayda mi ngi dóor di xeex xeex bu metti bàyyam bi ko jur di amir ñëw daje ak moom pour bloquer ko ko ngir abu obayda bañ a xeex ba mu ko éviter éviter benn yoon ñaari loolu ñetteel ba rek mu cor boppu baay bi yéeféer yi yéemu jullit ñi yéemu rey sa baay mi ngi noonu waaye suñu borom wàcce aay ne déedéet baay ak keneen ku dul bàyyi ci yem képp koo xam ne dafa noonoog yàlla jullit doo nekk mukk di doon koo xame ne nii da ngay sopp kooku wala ngay masla ak moom même bu doon seeni doom ak ku ñu mën a doon ca lii it mbokk jullit xam leen ni képp kuy noonu bu yàlla yow jullit waroo ko sopp soppeel googu nag dana gën a garaaw ci bu dee da nga ko sopp sopp doxalinu diineem loole moom dalay génne ci diine kéeféer la bu dee da ngaa sopp aadaam ba mu jagoo loole it ci musiba yi gën a bon la bokk yonent bi alayhi salaam mu ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum loolu tax yéefiri seeni feet seen lañuy yeyoo ci mboolem seeni aada seen doxalin loolee moom jullit du leen ci nuru nuru la mukk bokkul nag loo xam ne mbiri àdduna la nga nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ci wàllu liggéey yeeg wàllu leneen waaye amaa seen culture seen aada jullit du leen sopp mukk ci loolu mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ni ñu mel nii la yàlla bind ci seen xol ngëm yàlla te it mbokk ngëm ci biir xol lay nekk bu ngëm duggee ci xol ca la jëmm ji di réagir selon la nekk ci biir xol ba loolu moo tax ba képp koo gis mu nekk ci ay caaxaan ba waxee mu naan xolam xolam non xol bi am solo xol bi baax na déedéet mbokk loolu xol bi bu baaxee jëmm ji baax ñu ngi fàttali ko waat benn ndaw ci ndawi Sénégal waaye ni ñu xamee suñu footballkat yi ak a neexoon ñu xamee ko noonu ndaw bu ñuy wax oustaz Alioune Guèye bu dëkkoon ci Tëngéej Oustaz Alioune Guèye toog na fii ma toog ndeysaan di nettali benn góor goo xam ne dafa dab benn jeune mi ngi sol benn ay dàll kilomètre yooyu ñu sol takk ab jaaroom di pant ci digg mbedd mi ak rastaam mu dab ko ne ko sama doom jullit nga mu ne ko waaw mu ne ko mais jullit du du mel nii mu ne ko non papa li nekk ci xol bi mu am solo mu ne ko damaa xam ne li ne ci xol bi baaxul moo tax jëmm ji mel nii yaa ngi dégg mi nga noonu waaye xol bu baaxee jëmm day feeñ ci jëmm jë kataballahu fi qulubihim iman loolu tax ñu attan dajeeg seen baay rey ko dajeeg seen doom rey ko dajeeg seen frère rey ko lu tax ngir yàlla ak yonent bi duñ ko caaxaane mi nga noonu kataba fi qulubihim iman borom boobu subhanahu wa taala it mu ne dooleel leen ci ruux gu bawoo ci moom te mbokk julit gis ngeen sa oto bii nga yor na jógee nekk zéro kilomètre normal waaye oto bi balaa dox day am essence de en suñ cam mi ngi noonu portable yi ngeen yor day am charge de naka noonu it mbokk gëm yàlla fokk mu ànd ak xam-xam alquran mooy lay teete gannaaw ba nga gëmee yàlla yàlla moomu noo war a dundee kazalika jaal an jaalnaahu ruuxan min amrina day mi ngi noonu ruuxan yàlla ko def ruux alquran muy ruux looloo tax ñi am alquran yàlla mën a ñooñ ñooy dund afa man kaana mayitan fa ahyaynaahu wa jaalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas alquran mooy ruux alquran mooy leer looloo tax jullit mooy alxay mooy ki dund yéeféer mooy almayit mooy ki dee loolu tax yàlla misaal yu dul jeex wax na ko ci diggante ki dee ak ki dund te mooy ki xam alxuraan ànd ak ruux ak ki nga xam ne àndul moomu borom bi nee na noonu la ñuy dundee alxuraan ci kaw suuf bu ñu ñëwee ma tàbbaleen àjjana joo xam ne ma ngay daw ci suufam dex ya dexi meew ya sangara ya lem ya ndox ya ak yeneen yoo xam ne zanjabil kawsar zanjabil ila axiri dex yaa nga fay daw ñoo sax fe ba faw duñu fa génneti suñu borom yàlla gërëm leen yonent bi alayhi salaam nee na yàlla dana bàyyi waa àjjana ba ñu xéewlu mu ne leen ay yéen waa àjjana ndax gërëm ngeen ñu ne ko ah kay yàlla nu ñu def ba duñu gërëm may nga ñu lu ñu musta xalaat mu ne ah ndax duma leen dolli ñu ne ko ah suñu borom loo ñuy dolli mu ne bis ni ko tey gërëm naa leen dootuma leen mere ba faw lu leen neex def leen yal na yàlla boole ñu ca mbokk loolu mooy mooy mooy vrai àjjana àjjanaa ngi noonu waaye ku bëgg a def àjjana fii ci kaw suuf alkaange moo lay ñeel borom bi nee na ni sa génne i'malu ma shi'tum lu leen neex def leen képp koo xam ne da ngaa jël sa àdduna mooy lu la neex def sawara moo lay xaar waaye yow jullit mi xellu góor góorlul muñ gën jaare feti muñ boo tabbee àjjana suñu borom mu ne bis nekk tey lu la neex defal loo def gërëm naa ko watu ma leen mere ba faw gis ngeen ñoom it ñu gërëm seen borom borom bi nag nee na ñi melokaanoo melokaan wi ñoom ñooy xisbullah soo bëggee bokk ci xisbullah na la yàlla ak yonent bi gënal ku dul yàlla ak yonent bi soo bëggee bokk ci xisbullah fexeel ba lii di ruux di alquranul karim nga dugal ko sa dënn bi comprendre ko dund ko ñii ñoom ay xisbullah suñu borom mu ne nag ñii di parte bi yàlla ñoom dong ñooy gañe àdduna ñooy gañe àllaaxira yàlla yàlla dundal ñu ci faat ñu ci dekkal ñu ca wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain nasullaha fa nasiyahum mooy méngoo rek ay biñ doon tafsir léegi istahwaza alayhim sheytan fa ansahum zikrallah nasullaha fàtte nañu yàlla firiwul ni dañoo fàtte ne yàlla amul wala leneen mën nam sax ñu ngi tudd yàlla waaye nasullah mooy fàtte nañu ndigali yàlla fàtte ay tere yàlla loole moom la suñu borom yàlla wax fa nasiyahum yàlla fàtte leen jàpp naa ne jullit moom xam ne ne yàlla du fàtte suñu borom mu ne wa ma kaana rabbuka nasiya kon fàtte ne leen lañ cey jublu mooy yàlla moom it bàyyi leen ca seen alkaange googe ñu nekk ca li gën a nekk alkaange ci kaw suuf mooy fàtte sa boroom nasullaha fa nasiyahum mi ngi noonu suñu boroom mu ne inna nasinakum dana koy wax ci ay yu bari ci li ngeen fàtte daje bi ngeen daje maa nasitum liqaa yawmikum haadha li ngeen fàtte woon daje bi ngeen daje man àllaaxirate ji noonu laa leen di fàtte ci seen bëggal mi loolu daal kon la ñuy wax nasullaha mooy fàtte nañ ndigali yàlla yàlla nasiyahum yàlla bàyyi na leen ca seen alkaange ga wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam ala kulli xaal naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah ndax koo xam ne da nga koy jox sa alal muy dem di ka naane sàngara ala kulli xaal bu dee ne daal moom sa jegeñaale la boo war a dimbali faqiir la boo war a dimbali yow mën ngaa jël ndimbal nga jox ko lu dul nag mu ñëw sàkku la ndimbal ci mbir bu ñu tudd may ma lu ma naane sàngara may ma dama bëgg PMI may ma dama bëgg nangam loolu mu amul droit di ko jox sa xaalis amma nag bu dee sa frère la sa baay la sa nijaay la sa nangam la même buy jëfe loolu muy jëfe it yow am nga droit dimbal ba nga koy dimbali nga dimbali ko boole ko di ko laaye biir tant que tuddalu la ne nangam sangam laa koy jëmee ji mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam waaw suñu borom day wax ne yéen jullit ñi waxtu woo xamee ni nii kenn ci yéen mi ngi dem di faatu bu dee day def wasiya wasiya boobe na ko dénk na ko seedaloo ñaari nit ci yéen mi ngi noonu mooy fekk ne yéen a ngi ci dëkk bi ut leen ñaari nit nga seedaloo leen ne sama testament bii day nangam ak nangam nangam laa ci bëgg te xam ngeen ne arab yi daaw ñu bind dañ daan wax rek ak bari ay problème yoo xam ne ni nit ñi dañ koy dund lu yàggul dara sax dund naa ko ay ñu ñëw ne yaay diw da leen mayoon kër gi mais kan moo ko seede ah waxoon na ko ana ñi ko seede bu dee ne amuñu ku mën a bind bu dee ne binduñu waa ji wax rek la man la ñuy nangu di gannaaw deeyam mooy lépp loo xam ne ñaari jullit yu maandu taxawoon nañu seede ne ah ñu de seede woon nañu mu ne kër gi may na ko diw seede woon nañu mu ne bor sangam bale na ko seede woon nañ mu ne nangam nangam suñu borom mu ne bu dee da ngeen nekk ci tukki ci amu leen ay julit ut leen ñaar ñoo xam ne même bu ñu bokkul ci diine it bu ngeen jàppee ne maandu nañu ñoom ñu seede loolee. loolee bu ñu ñëwee ci dëkk ba nag seen seede boobee bu jaarul yoon ñaari mbokk yi nekk ci dëkk ci biir dëkk ba am nañ droit tebbi loolu waaye daal ci jubluwaay mooy wàllu wasiya amma waa ji nga xam ne daa mën a bind moom su bindee li di testament denc ko ba nga xamee ne bu dee ñu mën koo génne loolee moom jarul muy woo ay nit naan leen kaay leen seede damay def testament ci nangam nangam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal naam waaleykum salaam wa barakaatu ndax mu ne dañ naan bu ngeen dee deeyoo yonent bi na ngeen teg ci loxoom sarax yàlla waxul ñu teg ci loxoom sarax yàlla def ne génne leen sarax am na ñu bëri moom la ñuy layee addiye yi gis naa benn oustaz théâtre kat loolu lay wax mu ne waaw yàlla nee na iza naadatum rasul fa qaddima bayna najwa sadaqa ab sëriñ kenn di dem ci moom ca tegoo ci loxoom dara yonent bi daawul lekk sarax yonent bi daawul lekk sarax suñu borom dane bala ngeen a ñëw génne leen ab sarax qaddimoo bayna yaday najwaakum avant ngeen di ñëw génne leen sarax waaye yonent bi daawul lekk sarax su ko defee loolu mbokk nekkul loo xam ne nii lu ñuy layee loolu day wane rek importance su génne sarax day laabal doomu aadama bi mu nekk njëriñ miskin yi ca it borom bi yëgle it la nga xam ne mooy xéewalu toog ak yonent bi alayhi salaam di déeyoo ak moom wóor na mën a tey jii am na ay opérateur yoo xam ne suñu mënoon jox léegi un million am audience ak Macky Sall dañ ko def am déet mi nga noonu loolee da ngay gis loolu la am na ci ñoo xam ne nii ay taalibe yu bëri tey suñ ñëwoon tey ñu ne màqaru général dong ci néeg ba jaruloon na leen un million am déet loolu koy mi nga noonu kon nag importance màggaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam tax na ba buñ koy fayee bala kenn déey ak moom na doon lu ko ñor te it génn leen sarax mooy li gën waaye nag comme dafa amoon ay jafe-jafe borom mu ne léegi baal naa leen ko koo xam ne mën na koo def ci coobaram da koy def ci coobaram waaye farata moom yàlla mu ne teggi naa ko mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw xanaa ñu mujj ca mbokk ba la rek waaw mu ne ah ndax julit mën naa sarax ku dul julit naam julit mën naa sarax ku dul julit condition ba mooy mu bañ a nekk ku noonu ak lislaam su dee ne ab yéefér boo dëkkal la moom amul benn noonoo gum noonu ak lislaam njëkk gi ngay def jëm ci moom yéene loo ko defal ci teraanga yéene woon ko taaru lislaam ngir xemmem loo ko lislaam loolee mbokk da ngay gis ne lu lislaam ñaaxaate la borom bi mu ne laa yanhaakum allahu an allazina lam yuqatilukum fi din wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim bépp koo xamee ni ni yéeféer la ci musul xeex ak yéen ci dina noonuwul ak yéen lu ngeen mën ci njekki defal ko ko loolee terewuma leen ko ndax mbokk doomu aadama yi am na ñoo xam ne la leen di yóbbu ci mbir mooy seen xel am na ñoo xam ne la leen di yóbbu ci mbir mooy seen biir ka leen amal njëriñ kooku dong la ñuy topp am déet wala fi ñu nekk ëmb sa sanqal ëmb sa ëmb sa kersa mi ngi noonu sama mbokk Ahmad Sow bi ñëw fii yal na yàlla dolli ko wér nee na dañoo dem côté Malika fekk fa benn pël chrétien ñu ne ma ko waaw sëñ bi pël chrétien mu ne ko i maa ngi toog fii sonn maa ngi feebar jullit ñi faale wuñ ma labbe bi bés bu ne mu ñëw jox ma meew may ma piqûre may ma kaaris ma dem nekk chrétien loolee kon di mbir boo xam ne ñu bàyyi ci xel bu baax yàlla nañu yàlla dëppale ngërëmam fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain